mbokki jullit yu baax yu tedd yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di wax ni ngeen gën di eh, abonné ci seen bi tey gën di partage yi te di seen yi loolu bokk na ci li nga xamante ne day gën a may doole seen bi ñuy gën di indilaat yéen yeneen secret yu ëpp solo yi su ko defee tey dama leen indil secret boo xamante ni tabdil la ko ma ngi daa tuddee secret dépasse la secret ku bëgg xaalis la secret boo xamante wàllum xaalis rek rek dafa jóg secret la nag boo xamante ni euh, képp koo xamante ni daal liggéey na ko comme nii mu ko gisee tabdil la xaalis day jékki-jékki di ñëwati ci yow te doo xam fan lay jóge waaw en tout cas daal nii ngeen ko gisee nga xamante da ngay wut sa ñaari leget teg nii benn bi nga teg ko nii benn bi nga teg ko nii ñaari ndox yu nuroo noonu mais bokkul bii mbindum boppam la bii mbindum boppam la moom la leen bëgg a leeral ba mu leer képp ku yàgg dégg tabdil tabdil nag. mooy ngay jékki-jékki di am xaalis wala sa xaalis du dolleeku te doo xam lu ko dolli sa xaalis day jékki-jékki du yokk te doo xam lu ko yokk loolu ñu wax tabdil mooy li ngay gis ci yenn ci sëriñ si mën nañ ko te fekk ne mënuñu ko mooy euh, jox ma cent mille ma defal la ko cent mille jox ma cinq cent mille defal la ko un million loolu xam-xam la boo xamante ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fi ci li taxoon ñu bàyyi nga fi mooy. soo masaan am am xew xew wi juroom ñaar juroom ñett fan lay diré té yow yaang ci wara def lu toll ci 500 wala 1 million euro dara nga dem ci benn mag mu jox la benn secret boo xam boo ko liggéeyee balaa une semaine amat 1 million dikkal la nga soxla 5 millions mënoo koo am nga am looy taxawal nga bëgg jiwu amoo jiwu nga bëgg place amoo ko. nga dem ci mag mag jox la secret bo xamanteni nga bayal ko ba bayam jëm jox la secret na la liggey ko ci ñett fan war ci juroom ñaar fan 1 million dikkal la wara 5 million dikkal la lool lañ wax tabdil kon bi ku ko bëgg xamono koy liggey da ngay wut ñaari legget ben leget bu ci nek nga bind ci biir legget ga wala khad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal baxri wa rachaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdilan ñetti yoon nga koy bind ci biir leget gi benn bi nga wut ndoxu ma ul wird duy ko ci legit gi bam fess nga tek ni benen bi nga bind wala xaddi karamna adatam su jumul 4600 643 mille six cent six lay don dan dina len ko indil ci minni mi ngeen jakarlo mom adat bi adat bi karama 4600 lim don adat bi lim don Euh, xam naa 643 wala 642 mais dinaa fexe fexe ba mu dugg ci biir vidéo bi nga xam ne arab bi la carrément incha allah soo ko defee nga bind ko wala xadikam ne aaya bi soo ko bindee nga defaat ko comme ni def bii nii su ko defee euh, bii da koy teg di ko sangoo bi yaa koy sangoo guddi ba guddi kenn du ko laal ci bëccëg guddi koy sangoo bi nga xam ne maa ol wér la da ngay jël percal bii ngeen gis. da nga koy tiim nga weer di ci jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar douze fois jawharatul kamal xam ngeen ko muy allahuma salli wa sallim ala xayni rahmati rabbaniyati ba ni muy jeexee loolu mooy jawharatul kamal yaakaar naa yéen a ma gën a xam moom moom ngeen jàkkaarloo noonu ci biir vidéo bi loolu mooy jawharatul kamal nga jàng ko fukki yoon ak ñaar tifli ko ci perkaal bi boo paree nga jël perkaal bi laxasu ko genn leget gi nga xamante si ne moom nga defal ndox ma ul werdi bi boobu mom ma ul werdi mo koy fess del so paree bobu nak dang koy denc fenn ci senek néeg nga xamante boo xësee lëmase loolu ba takko kenn du ko gisaat heure bo xeye da ngay jël sa loxo ndoy jot bi nga yoor ko ci bir leget gi gëmm genn ci ndox raxa sa loxo nga dem da ngay raxa sa loxo da nga genn bala ngaa dox lu ma dix minutes wala bala ngaa kii lu mat euh, vingt minutes da jot benn xaalis boo xamante ne day dugg ci loxo mhm. nu mu toll nag nu mu toll nag baax na waaye da nga jot benn takk xaalis boo xamante ne di nga ko jot incha allah loolu la ñuy wax tabdil nga xamante ne ma ngi doon ko def secret dépense wala dara bu doon sa dépense ci cinquante mille bu ko defee sa cinquante mille ñëw bu doon sa dépense ci euh, cent mille la toll heure boo ko defee cent mille ñëw kon lii mooy secret bi ñuy wax mooy secret tabdil tabdil nag yu wér wér am na yoo xamante ni bii ci la bokk képp koo xamante ni daal borom kër nga te dépasse di di di di kii ci yow wala mbir yi doon dox ba yàgg doxatut iseen lii ñaari la gën ngay wut léegi góor gune nga bind ci wala xadi karam naa ñetti yoon genn gi nga bind wala xadi karam naa adatam def ko saabra di ko sangoo par guddi beneen bi nga def ci maa ul wér ba mu fees nga jàng jawharatu kamal ci ci ci ci ci perkaal bi douze fois lamasu ko euh, léger gi dugal takk ko dugal ko fenn ci sa néeg su ko defee boo xëyee nga as ci sa loxo raxas sa loxo yi nga xool jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.